tubaab bi muy ginnaaw bi nga xamante ne ak kii di Aziz Dabala ak Waly mi nga xamante ne dëkkoon nañu ñu fekk leen foofu ca Pikine Technopole rey leen rey bu ñaaw bi nga déggee li nga xamante ne moom moo di xibaar bi oustaz nan la def. man nag dégluwuma ko. ah bon. <laughs> an nafsu bi nafsi ku rey nit nañ la rey loolu la alquran ku rey nit nañ la rey yàlla daal li mu wax leer na simple na ku rey nit rey leen ko ndax wa fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaab su ngeen ko defee da ngeen dund bu dee ko def ngeen def ko da ngeen dund dund bu neex dund dund bu dal dund dund bu sell waaye bu dee ko def ngeen maslaa bàyyi noonu dangeen ngeen dund dund jafe-jafe ngeen di dund kon nag eh, loolu la wa fil qisaas xayaatun yaa ulil albaab waaw ku def loo war a nañ la rey bu waaw ñu ne waaw bu ñu kompuloo nag ñu ne bu ñu kompuloo donte kenn na ko rey nañu rey ñëpp ndax atamaali la complot moom dañuy rey ñëpp ñëpp ñëpp bu dee kenn ko rey sax ñëpp la ñuy rey bu fekkente ne nag kenn rey kenn dañuy rey kooka waaye gis nga li ñu li ñu daal ñun droit de l'homme ñuy bëgg rey waaw droit de l'homme ñuy bëgg a rey lu ñu wax ñu naan lom lom lom lom xanaa ki dee du lom ah waaye ni waaye lom lom kay lañ ko jox ak xam nañu rey kii tekki wetam ñu ñaar lom ku ne jox sa wàll waaye droit de l'homme droit de l'homme droit de l'homme di ñu di ñu rey ak coow rek ah du noonu nag yàlla daal waxul loolu yàlla daf ne an nafsu bi nafsi ku rey rey leen ko loolu la yàlla ku rey rey leen ko ah, kon kay jeex na ku ñu rey ko rek loolu rek la amul leneen amul lu ñuy wiiri amul lu ñuy lëngal ku rey rek ñu rey la waaw ah, ku ñu rey la waaye dañu gis fii ci suñu réewu Sénégal ku rey ñu rey la appliqué wuñu ko fi mais ginnaaw bi xamante ni am na Sénégal yëpp koo tàllal micro loolu la lay wax leen wala ñu tëj leen perpète maanaam ñu bañ a tee génnati à vie ah moom tëj man de li yàlla wax laa wax daal li mu wax man loolu laa wax yàlla nee na an nafsu bi nafsi gannaaw nag nee ñun loolu duñ ko doxal Sénégal ndax nangam nangam dugg na fii ñuy gën di am dee dee yu mel noonu rek nit ñi dee rek gaa yi rey rek parce que ku mu wóoroon ne boo rey nit yow moom sayee dañ lay rey ku kenn du rey kenn kenn du rey kenn ñëpp dañuy dund dund bu sell waaye nag affaire loolu amul dañuy dañuy def lu ñu neex rek loolu kenn kenn du ko def ku rey nañ ko rey ku rey nañ ko rey yàlla nee na bu ngeen di defante rek mu jeex bu dee ko def ngeen def ko rek mu jeex waaye bu dee ko def ngeen maslaa ko mu jàll keneen dana ko defaat waaw ah, kon wa fil xaq wa fil xisaas yi xayaatun yaa ulil albaab waaw ah, kay oustaz li gën a yéeme ci mbir mi mooy que dañu jàpp ne que ñi nga xamante ni ñoom ñooy présumé meurtrier comme ki nga xamante ni moom moo di nabule ñoom ñaar yàgg nañoo ànd ba ñëpp jàpp ne ay xarit lañu euh, ñu ni moom moo orchestré li nga xamante ni moom moo di meurtre bi ci ginnaaw loolu nag sénégalais yi dañuy wax ne que xarit amatul booba ba léegi ñu koy sànni ay traak di wax yoo xamante ni si lu bëri la ci ndoddam nag nga jàngate loolu euh, ay waaw def lépp. waaye yàlla daal nee na kii rey nañ ko rey ba pare d'abord. kooku moom nañ ko rey loolu la yàlla wax ci alxuraan. xarit ak soppe nag man gisatuma ko. mbëggeel ak xarit bëreetul. maa la bëgg neex wax ci làmmiñ li dëgg ci xol waaw mbëggeel ak xaritoo ah non xarit boo xam ne boo wéetee mu jëw la mm-hmm. bu wéetee jëw la bu nekk ay nit ñu lay pexeel moom mu nga ca mu nga ci gannaaw toog di seetaan kooku du xarit xarit xarit mooy koo xam ne bu la nit ñu doon jëw seen ko ni noppi leen ndax kee xaritam la noppi leen ndax kee xaritam la looloy xarit waaye boo di jëw ñu seen nit ñu xaal leen sax ba kee ñëw kooku ñëw ne xanaa xanaa diw ngeen wax ah diw noonu la mel waaw ana xarit xarit amul soppi amul maa la bëgg nga ne sama xarit la neen uhu rek waaye xarit dëgg dëgg dëgg dëgg amul kenn ku nekk nga defoon xarit xëy na la wor xëy na la wor def la caay-caay goo xam ne waaye yàlla yàlla yàlla buur yàlla moom mu ngi fi rek kuñ tegul yar mu teg la yar bi yàlla moom mu ngi yoru yaram rek di dóor rek waaw loolu du dëgg du yoon wor wor baaxul nit du ànd nit ba ñu ne xaritam nga xëy wor ko loolu du liggéey bu rafet du judd bu rafet bu rafet waaw benn du alors oustaz li gën a yéeme ci affaire yi mooy ki nga xamante ni moom moo di assis ginnaaw bi mu génnee àdduna dañoo jël ay tuuma yoo xamante ni yu xaw a garaaw la maam lu mel ni borom ñaari tur yi di ko teg ci ndoddam ginnaaw bi nga xamante ni génn na àdduna est-ce yooyu doon loo xamante ni lu rafet la ci ndoddam man daal boroom ñaari tur mënuma ko koo wax ni te fekkuma góor ci sa kaw góor ci sa kaw daal di la sëyee waaw kay wala nga fekk góor mu di ko sëyee waaw kay bu yàlla lim wax wax ak tëtuuna rijaala shahwatan min dun saa bàyyi leen góor ñi bàyyi leen jigéen ñi fële dem ca góor ña loolu du dëgg ndax góor ah kii sol kabam nga sol kam nga nga naan da ngay da looy doxal di kaba kam mënu ñoo doxal dara laaf ak laaf mënu ñoo doxal dara ah nit dafa war a am xel waaye cay cay gu ëpp la rek ñooñu daal li ci yàlla wax bu fekkee ne am na waaye nag kii gisuñu ko nit ñi mën a wax rek bu ma ca wax dara man loolu wa man yëmmut wala mu yëttub an wisri yi fawit illallaahi jami amri man daal loolu laa ci xam nit ki dee ci tuubul ay bàkkaaram nañ jébbal yàlla lépp moom moo xam nañ ko jébbal lépp waaye us uskuru mahasina mawtaakum yonent bi nee ne bu ngeen deelee dee leen wax lu rafet yi way deeñ ku ci am mbokk mu faatu nañ ca wax lu rafet bañ cee wax lu ñaaw wax ju rafet jooju la ñuy bind waaye wax ju ñaaw kenn du ko soxla uzkuru mahaasinakum mawtaakum uzkuru mawt nu mu tuddati uzkuru mahaasina mawtaakum loolu la yonent bi wax uzkuru mahaasina mawtaakum maa ngi leen di dénk ngeen di tudd lu baax ci way deeñi te ngeen bañ tudd lu bon muy uzkuru mahaasina mawtaakum waaw ñu koy bàyyi xel waaye nit dee nga naan wuy góor jigéen la woon waaw kii nangam nangam nangam mbiri yi ngi rek te xamoon ne yaa ngi dugal sa bopp yaa ngi wax lu garaaw ndax ki nga koy wax wu ji na boromam ngay wax lu garaaw ci bu fekkee amul da nga am problème bu amee danga am problème kon kay noppil noppil uskuru daal maxaasina bu ngeen mënee wax lu rafet ngeen wax ko su ngeen ko mënta wax ngeen noppi waaw fal yaqul xayran aw li yasmut yàlla yonent bi nee na ku mën a wax lu baax wax ko ku mënta wax lu baax nga noppi waaw kay oustaz ñu gis ni nga xamante ni moom moo di tuuma yi dafa bëri woon trop ci li nga xamante ni moom moo di deewu Aziz Dabala gi ak ki nga xam moo di waale parce que bu ñu yoo xamante ni si sax peut être que laale wuñu ci parce que yoon tegu leen la ko tuuma yu mel noonu ñu koy tegu doomu aadama ah déet bu fekkente ne wax nañ leen ko ñu laale ko ci ñi nit ñi mënu ñoo xam lépp nag bu ñu ca laalee daal am nañu yàlla am nañu yàlla affaire nañ leen rey buñ demee yàlla na dina régler lool buñ ca laalu nañ leen bàyyi loolu moo ci nekk. dafa am ñu ci tuumaal ne yoon dama ne buñ ko defee baax na buñ ko deful baax na ndax kenn ku ne la nga def xam nga ko su fekkente ne ñoom ñoo ko def nañ nangu suñ ko deful nañ bañ ne defuñu ko parce que yàlla yàlla yàlla ngi gis lépp bu nga bu leen jaaxle yàlla mu ngi gis lépp yàlla mu ngi gis lépp lépp lépp lépp lu xew yàlla nga koy gis ka ca bokk nëbbuti ne bokkuma ci ka ca bokkul ñu ne ci la bokk lépp yàlla nga ko gis yàlla umpulewul dara nañ ko bàyyi ak yàlla rek yàlla moom xam na li muy def dara du ko ump dara du ko réer nañ bàyyi ak yàlla rek ñooñ ñu wax man lu ma ci man yow lu ci loo ci man lu ci keneen man dara yàlla rek a ci xam dara waaw kay nañu ko bàyyi yàlla rek. alors ñu gis kenn koo xamante ni dañu ci la bokk mu tudd Fallou Diop ñu gis ni papaam moo ko jël yóbbul ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo di takk der yi ni leen kii sama doom la ci la bokk acte boobu papa ji def noo ko ah, ji de def na def na def na def na def na def def na defit de ah, def na loo xam ne daal def la wa fekk koo xam ne daal nga jàpp sa doom ci la bokk ak ah, kon da bokk bu ca bokkee nag nañ ko teg ci yoon bu ca bokkee daa rey rek <laughs> rey rek waaw. moom yaa ñu ci bokk ñépp yoon rey na leen waaw suñ leen reyee yoon rey na leen buñ leen reyul yoon rey na leen ñoom ñëpp ku ca mën a jàpp rek ku ca mën a bokk rek yoon rey na la waaw ah, yére bu amee sobe nga xam ne sobe saa ngi takk nii nii raxasal lii rek waaw bu nekkee ci yére bi di xamu fu ne nag fóotal mbubb yëpp fóotal lépp rek reyal lépp ñu rey ñépp ñëpp ñëpp ku ci bokk ñu koy rey loolu dañ koy bandale rey <laughs> ah, rey rek xam dee xam nga amoo amul ñaar amul ñett dee benn la ah amul ñaar amul ñett benn la nañ ko jàpp rey ko bokku lag nag ki eh, góor gi am jabar njaalo wala jigéen ji am jabar njaalo ji am jëkkër njaalo jigéen ju am njëkkër ba pale njaalo kooku dañ koy jamat di ko jamat di ko jamat ba mu dee ñu sank ko sank yóbbu ko ci armeel li suuli ko góor gi am jabar di njaa dem njaalo dañ koy jamat di ko jamat di ko jamat ba mu dee ñu sang-sang suuli jeex na ñaanal ko suuli ko ci armée la góor jigéen itam noonu lañ koy def ñoo bokk àtte jamat ba mu dee rek ñu ñu jël ko sang ko sang ko jullee ko ñaa ñaanal ko yóbbu ko ci armée la ca yi ñu ñuy suul jullit yi lañ koy yóbbu ndax jullit bu mooy yàlla la jullit bu mooy yàlla la jullit bu mooy yàlla du yéefee jullit bu mooy yàlla la dañ ko def li ñuy def jullit voilà noonu lañ koy def dañ koy dañ koy jamat ba mu dee ñu sang ko sang ko jullee ko yóbbu ko ca armée waaw ku koy jullee ku mel ni man rek fàq boo xam ne tekkiwul dara noonu na ko jullee nit ko dul dara waaw ko jox ku mel ni man rek ma jullee ko ma ànd ak gars yi ñu yóbbu buñ demee bàyyee ko fa. ba tekkiwul dara est-ce dina mën a jullee comme ni ñuy jullee. ah moo ah ñi fi raw a jàng di ñi fi raw mm. bëri na caay-caay yoo xam ni jàng ko def ñoo koy def ah ñuy jàng ngay gis ko mokkal alquran di def ay rab ak ay yenn yenn mokkal alquran laa mokkal bàqara ba naasi nga mokkal lépp di def yëfu caay-caay jàng jàng jotewul loolu daal gis nga jàng xam-xam xàmmi moo ko yor boo xàmmiwul amul njëriñ soo xamul jàngal soo jàngee xamal soo xamee xàmmeel mu jeex mu jeex